convoqué woon point de presse bi pour waxtaan informer opinion nationale mais également autorité yi xamal nit ñi jafe-jafe yi ñuy dund ci entreprise bi wax ne moom la ñuy liggéey durant ay at at at yaakaar naa ne Sénégal yëpp war nañu mën a seede liggéeykat travailleurs yi nekk biir yi kenn mësul ñu dégg dara. mais bu ñuy xamoon ne ne am nañu am nañu aussi travailleur dañu am ay droit yoo xam ne dañ ko dañ koy jalgat travailleur jën nañu seen responsabilité constituer créer syndicat pour ñu mën a défendre seen ak ak seen yelleef loolu bus bu mu amee keroog bu mu amee en 2016 ñu dem élection ñu nekk minorité ñun suñu syndicat Sintra BPRS bi ñuy defee benn prochaine élection bi en 2016 en 2019 pardon ñuy travailleurs accordé ñu confiance bi ñuy renouveler ñu ñuy jox ñu nekk majorité ci biir entreprise dans les 26 établissements des brioches dorées suñu syndicat bi moo nekk majoritaire keroog ba bii boobu ba ñun amuñu jàmm suñu employeur mu ne kut ko kut képp ku bokk ci suñu syndicat dina la faagaagal at menaces yooyu dañoo yaakaar ne sax dafay def loolu pour intimider travailleurs yi bi ñu demee ba seet menaces yi mu wax yëpp mu ngi koy def en exécution ci lañ jël suñu responsabilité fexe ba mun a woo ko ci waxtaan ci dialogue parce que loolu la ñuy xam kenn mësuñu dégg dara mais lu ñuy jaaxal ni muy bundu xatal travailleurs di leen toroxal dafa ñuy yéeme di si boolee nag xamal na ne ñun doole la am si kër gi ci réew mi bi ñu nekk ñun. te travailleurs yi ñoo commencé liggéey ak moom benn ba tey bi ñu nekk ñaar fukk ak juróom-benn entre établissement bi restauré foo dem rek fekk fa bi restauré waaye travailleurs yi ñu jàmm ñu ngi leen buntu xatal seen droit yi ñu koy bafoué ñu ngi koy foulé au pied kenn respecté ko ah ñi xam ne ne mënuñu croiser les seetaan ko ñu ne nañu fexe waxtaan ak moom ñu woo ko ay waxtaan ça fait presque quatre ans nangu ñu déglu fu ñu dem rek mu taxaw temb mu ne du fi am. suñu syndicat nag comme syndicat responsable la dañuy am contrat morale ak travailleurs yi ñu am confiance ci ñun ñu taxaw tem ci ngeen gis temps yële ñu ngi commencé def ay marche ay manifestation ba yàlla def ñuy dem ay rencontre mensuelle ñu jël suñu plateforme euh, revendication yépp tënk ko ci plateforme ñu ne comme bu ñu toggoo ak moom ci rencontre mensuelle sax PV yoo xam ne ne daf ko war a signer dafay bañ mu ne di ko signé lépp lu mu jël ci engagement ci entre moom ak délégué du personnel du si def dara te ñu ngi continuer encore di buntu xatal travailleurs yi non seulement amuñu situation salaire salaire bu baax du respecter seen convention bi mais également mu ngi leen signé ay contrat CDD boo xam ne ne kenn xamul fan la am alors yoon tere na ko mu ngi leen signé mun na la signé CDD plus de cinq ou six fois lu tax mu am succès di ko def parce que bu la signé loo contrat CDD du la nangu jox travailleur yi seen copie bi daf koy garder foofu ñu joytu ko fu nekk mënuñu am ndam ñu marche ñu def plateforme bi ñu ne léegi nañu ànd ak moom ci inspection du travail bi ñu demee devant l' inspecteur ñuy conduire plateforme bi ñu waxtaan ak moom mu jëlee engagement mu ne dina ko respecter désormais depuis deux mille 2019 ba tey deful dara mu continuer di intimider travailleurs yi ku mu dëgg mu nekk ci suñu syndicat bi mu ne la sa contrat bu jeexee du ma renouveler travailleur tiit bañ a bokk ci syndicat bi bu ngi bafoué seen droit bi di leen liggéeyloo ay heures yoo xam ne ne yoon tere na ko di leen chantage bundu xatal leen du respecter suñu convention boo xam ne ne moom moo nekk moom la moom moo ñu tënk ñun ak moom mais li su gën a garaaw suñu cotisation sociale yoo xam ne ne ñu ngi ko non seulement am nañu salaire bu neew te respecté wul suñu convention bi mais suñu cotisation sociale yoo xam ne dafa koy dagg suñu salaire du ko dem versé ko à l'IPRES suñu problème problème bi institution bi mooy IPM boo xam ne ci lañ bokk ñun ak moom depuis 2009 ñu ngi plus prix de 3000 travailleurs travailleurs yooyu noonu patron bi mooy cotisé cent mu dagg travailleur bi 3600 muy 7200 war a ko dem versé IPM bu ñu nekk. ñu dem foofu ñu ne ko defal ñu situation IPM parce que travailleur day ñëw ci ñun war a bénéficier carte karne carnet IPM dans la mesure ñu ngi leen dagg IPM pour mën a bénéficier avantage IPM travailleur yi bu ñu demee foofu ñu ne leen doole am doole am karne léegi nag ñu dem laaj ko mun lu tax loolu ip borom IPM bi mu ne ñu waa ji dek liste travailleur yi mu déclaré fii ñoom rek la ñu mën a jox IPM ñu ne ko wax nga dëgg ñu dem ci moom pour laaj ko ñu ne ko waaw ah léegi dañu bëgg nga dimbali ñu travailleurs yoo xam ne yaa ngi leen dàkk ci IPM nga dem cotiser leen mun ne du fi am ñi ñu def ñu càmbar travailleurs yi xool suñ situation bi nan la toll travailleurs yi nekk ci biir restaurant ñi ngi gis ne presque plus de 3000 travailleurs ñu ngi fii bi ñuy demee wax IPM pour ñu joxuñu ñu yi mu déclaré foofu IPM mu ne nangu duñu ko jox ñu jël UC sommee ko mu dem laaj ypm la liste des travailleurs yoo xam ne suñu employeur moom la déclaré foofu notre grande surprise était que ne moom 614 travailleurs kese la fa déclaré si 3000 travailleurs alors que 3000 travailleurs yëpp ñu ngi leen dagg 3600 3600. ñu ne ko kaa ñu toog ñu waxtaan ci loolu parce que yoon may nañu ñu am suñu IPM bopp ci ñu entreprise parce que on fait plus de 3000 travailleurs mu lànk mu ne du fi am. boo waxee mu ne leen foo leen dem neex leen foo leen dem yéen a xam doo leen fi am ndam parce que man sam xaalis laa yor ah ma yaakaar ne ay ndam Sénégal ay sénégalais comme ñëpp. dañu daan suñu doolee rek bëgguñu nekk agresseur bëgguñu nekk leneen nous voulons gagner notre vie dignement am na ay loi yoo xam ne dañ ko teg suñu dëkk ñu yaakaar na ne loi yooyu noonu képp koo xam ne ne employeur nga sénégalais nga wala quelque soit nga bañ a nekk sénégalais da nga war a respecter yoon yooyu waaye suñu employeur mu ne du ko def parce que derrière il se sent fort xaw ma nag ñan ñoo ko ñan ñoo koy jàppale ñu koy jàppale nag nañu xam ne ñu ngi ñuy lor ñun sénégalais comme ñoom ñu ngi lor ay doom sénégalais yoo xam ne ñu ngi liggéey ci Brioche Dorée xamuñu ñan la nag parce que bëgguñu tooñ kenn mais moom loolu lay bàkku saa su nekk mu ne foo leen dem doon fi am ndam parce que man fii damaa yore sama xaalis lu ma neex laay def alors que mu ngi toroxal ay sénégalais yi nekk ci Brioche doore ay travailleurs ay des travailleurs yoo xam ne liggéey nañ ak moom commencé ak moom benn ba ñu ngi am ñaar fukk ak juróom-ñaar Brioche yi nekk partout dans Sénégal loolu la ñuy ñaawlu woo nañ ko ci waxtaan ci jàmm mais nangu ñoo dégg durant quatre ans loolu tax ñuy génn di wax pour ñëpp ñu mun a ci jàppale. sénégal Sénégalais mën ñu jàppale xam ne ne seen doom ñu ngi souffrir ci dans les rétablissement bi restauré autorités yi ñoo xam ne ne ñoom ñoom ñi tax ñoo ñoom la ñu fal ñu jàppale ñu parce que waa ji mu ne doole la am xaw ma nag doole bi fan la ko jëlee waaye mu ne doole la am kenn mënu si moom dara donc loolu moo tax ñu point de presse bi. pour sénégalais yoo xam ne ne ñooy dem ci Brioche Dorée ngeen xam ne ne seen doom yi nekk Brioche Dorée amuñ nekkuñu si jàmm ñu ngi liggéey boo liggéey fenn bu jotee dañuy dagg sa salaire zéro franc ngay ñibbi sa kër day dagg lépp dagg dagg dagg doo am dara alors que ñu ngi liggéey 24 heures sur 24 loolu na injustice boobu la ñu bëgg a dénoncer informer population sénégalaise informer autorités yi aussi ñu jàpp si. parce que yuuxu nañu lii mooy presque xaw ma cinq ou quatre fois ñu ngi wax ci télé ñu ngi yuuxu ñu ngi def marche autorité yi ñu wax ak suñu employeur nekkuñu ci jamono bi njaam ku nekk am na droit ku nekk am na yoon boo xam ne ne moom nga foofu nga war a tënk bugguñu nekk agresseur bugguñu ton kenn waaye nag dañu bëgg ñu respecter suñu ak ak suñu yelleef. waa ñun suñu mbëbët moom boobu ba léegi ñoo koy mbëbët boobu ba léegi ñoo ngi koy jooytu boobu ba léegi ñoo ngi koy waxee fu ne. ñun dañ nekk ci entreprise boo xamante ni entreprise racisme la lu tax ma ne entreprise racisme parce que munoo fi nekk di liggéey ngay bokkal naar même fonction yéen ñaa ngeen bokk même fonction moom mu ñëw ëpp la salaire mun la fay triple fois loolu yaakaar naa ni racisme la fii ku fi naar boo ñëwee da ngay dégg jàmm da ngay am sa lu baax da ngay am salaire yu baax ñun doomu sénégalais yi nag doomu ndet yu ñuul yi mel ni mérité wuñu pour am benn naar boo xamante ni ba mu ñëw yorul dara ñu ñoo ko liggéey jël suñu doole suñu xel suñu ndaw lépp def ko si Brioche doore bi liggéey Brioche Dorée ba Brioche doore bi yaatu Sénégal foo tourné gis Brioche Dorée adduna bi kenn mënatu fi nëbb Brioche Dorée fii état bi xam na ni luy Brioche doore jaaykatu dorog sax mënul tijjee nii ay Brioche doore kon war nañu xam ne kii naar bi lan moo waral muy tijjee nii Brioche Dorée yu bëri parce que ñun suñu bopp yi ñun lay jëlaat di utaat xaalis ñun sénégalais ñoo ngi koy liggéeyal parce que maanaam lu mu ñu waral cotiser di ñu ko dagg ñun suñu salaire ba pare du ñu ko verseel mu doon ay million si moom loolu day yomb pour chaque année ngay tijji ay ñaari Brioche Dorée loolu la suñu directeur général di dund ak ñun suñu IPRES yi du ñu fa verseel wala muy tëb ay at du ñu fa verseel billaahi wallaahi tallaahi am na ay pa ay maire yu nekk si Brioche Dorée bi ñu dem retraite ndax lan seen IPRES amul dara lu leen fa verseel ñu koy dund fii si dëkk bi fii si Sénégal bi loolu la ñuy dund si Brioche Dorée bi ibbi ko ba Mbuur te ñun ñii ñëpp ñoo ko liggéey am na ñeneen ñu nekk si liggéey bi xoqatal bi dafa weesu loolu xoqatal bu ñuy xoqatal du ay waxantu ay kii gendarmerie lañu lay yóbbu wala police wala ñu dàq la dàq tafaañi nii gérant ba pare doon délégué pour man délégué boo koy dàq dina dem sax ba si ministre bi mais fii laa xamee ni kon naar bi bu ko neexee dàq délégué du mujj fenn moo ngi nii defagul ay deux mois nañ ko dàq délégué la plus gérant léegi la moo waral muy def loolu fit boobu parce que ki fa nekkoon fële di ko dàkkal ay délégué yi monsieur Cheikh Sène moom la ñu débauché en pleine fonction inspection du travail indi ko suñu entreprise yi mu nekk fi DRH man moo ma yóbbu gendarmerie yóbbu suñu secrétaire général bi conk ak régional bi dañ koy waxta dee ñun ay doomu jullit la naar bi lu mu nekkee gars yi nekk si kaw ñoo ko ko may moom moo ne du ma leen woo régional bi sama xarit la fu leen neex dem leen sama xaalis laa yor te milliard am yooyu ñun ñoo ko liggéey amul woon dara ba muy jógee xombal xam na ma xam nañu ñun ñëpp xam nañu duñu tourisé ñun nag gëm suñu bopp moo tax ñuy jooytu de mais bu ñu àndaloo ak moom chaque mois man mii damay laal ay cinq cent mille wala chaque semaine may laal trois cent mille parce que looloo fi am am na ñoo xam ne da nga lay jox oto jox la sa loger la ba pare si faye sa doom yi école ngay wër si biir door yi naa leen bu leen topp syndicat bi ñii nañuy yàq kër gi def naa treize ans si kër gi xaw mu li prime de panier boobu ba léegi maa ngi guddi maa lu nekk liggéey nañ sama pour ay wax sama bulletin yi dama ko naroon génne ñu ne bul ko génne ku wax def treize ans ndax dina am salaire yu mel nii loolu la ñuy dund ak sunu directeur général fii si Sénégal doomu réew mi ñëpp dañuy seetaan Sénégal ñoo ngi jooytu ñoo ngi dem fu ne lan la ñu bëgg lan la ñu bëgg ñu jaay doole naar yi ëpp ñuy doole mais dëkk bi dëkk droit la justice la moo tax ñu tegu si yoon la moo waral sax ñu dem solida pour def suñu sitting parce que dëkk bi fu mu toll nañ ne demi demi barrière yi la ñu nekk. si lañ nekk kenn mënul dem fenn ndax coronavirus moo tax ñu toog mais na ñoo ngi toog boobu ba léegi nag jàpp suñu ñam bi di def lu ko neex suñu directeur général di def lu ko neex ak moom ak DRH bi di jàq jàpp travail di leen dàq ku bokk si syndicat bi ñu dàq la ñun nag nañu déterminer nañu sonn nañu dàq nañu rey wala mu tëj ñu mais suñu àq suñu yelleef ñu ñoo ko moom ñoo ngi woon nag ministre di travail ñun ay doomu réew mi lañu moom moo soytu loolu kon war na wax waa inspection du travail xool leen waa Brioche Dorée man lu ma nekk si kër gi yëpp musuma gis waa inspection du travail ñëw si kër gi di vérifier ndax est-ce que Brioche Dorée tout va bien waaye ñun nag du ñu ay xale nag nañu bëgg am ay soxna nag am ay tout tànk suñu soxna yi gaañ di dem di ñaari nene pour am ay dépense loolu nag jomb nañ ko ñun ay góor yàlla nañ ne ku liggéey am mais ñu ñoo ngi liggéey di dellu ginnaaw pour lan naar bi di gën am ay milliards dem leen Sodida xool leen lu mu fa tijji dem leen Ngor dem leen Mbour centenaire bërki démb 31 décembre bi la centenaire tijji Brioche Dorée Guédiawaye moo ngi fiy wàjjilal benn te suñu prime décembre amuñu ko Brioche Dorée xam nga lan lañ fiy xaar 1er janvier ba 31 décembre lan lañ fiy xaar comme neexal 20 000 par année par décembre 20 000 30 000 moom la ñuy xaar année bii mu ne duñu ko jox ndax la syndicat bi moo taxaw mu ne duñu jox suñu prime de année 20 000 te xoolal lii bu génnee ngeen gisaat ay ñeneen nit taxawaat di waxaat parce que ñooñu seen poste day nañ am seen oto ñu fayee leen seen appartement ñun nag ñoo ngi woo président de la république ñun doomu réew mi la ñu suñu carte ñun ñoo ko jox pour réew mi jaar yoon nañu xoolal Brioche Dorée bi ndax doomu réew mi ñun sénégalais ñun ñoo nekk fii de mais ay pa ay maire ñoo ngi si ginnaaw di jooy saa su ne moo tax ñun du ñu bàyyi mukk naa bi woo nañu pour jox ñu xaalis pour jox ñu ay post yu baax mais bugguñu ñu jël suñu yeneen morom yi di torox kon lii nag maa ngi leen di ñaan ngeen génneel ko jox ko président de la république ministre du travail ñu waxal waa inspection du travail ñu ñëw xool Brioche Dorée ndax doomu sénégalais yi mun a tekki mun a jëriñ seen yaay ak seen papa yi balaa ñuy dem di jël gaal gi seen bopp yi seen bakkan yi di fa des wasalaam.